di sant département Louga gi yep ci mobilisation bi def tay wuy si madame le ministre de la femme ma bëgg yeen ñep ngeen jog taxaw sargal ministre de la femme ko yeen ñep jog leen ñep jog leen bu ngeen su ngeen ma wax ngeen jóg ngeen nuyu ko sargal ko parce que franchement daf ko mérité ndax madame Ndeye Saly Dieng mi ngi liggéey liggéey bu rëy ci faamu Sénégal yi di la wax ne Ndeye Saly son excellence le président Macky Sall juumul ndax dénk na femmes yi jigéen joo xam ne mbokk Sénégal la mais également jàmbaar la jigéen ju góor mënul la liggéeykat bu mag la te président bu décidé xool-xool làmb ba daj ci yow rek nga war a xam ne kon mat nga ko kon ngàcca nga laama madame la ministre de la femme ñi ngi lay encouragé ji la ñaanal yàlla suñu borom jàppale la ci mission bi nga xam ne président jox na la ko vraiment nga réussir ci bu baax a baax a baax ñuy ñaax jigéenu Sénégal yépp ñu ànd ak yow jàppale la jàppale la président Macky Sall ndax président Macky Sall chance la pour Sénégal te président Macky Sall jigéen ñi dañ ko ñor ndax xam na ne jigéen boo ko boolewul ci développement dëkk dëkk ba du mas a dem gan du dem ma a dem kanam kon nag jigéen ñi kenn mënta wax développement sans yéen kon président Macky Sall daf leen a war a jàppale moo tax mu leen di jàppale tànnal leen njiit ju mat njiit muy madame Ndeye Saly Dieng kon vraiment ma bëgg ngeen jàppale ko encouragé ko ba nga xam ne li ko son excellence le président Macky Sall sas mu mën koo réussir ci jàmm ak salaam en tout cas man waa Louga yéen laa am yéen a may jàppale kon ma bëgg ngeen jàppale ko bu baax a baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala